xam ni ñëpp lay xaar Abdoul Aziz Ndiaye taxaw seere soxnaam muy loo xamante ne tey jàpp naa ni war nañ ci tirer ay leçons. moo ko njëkk wax moo wax ni ayu mamraatin maatat wa zawjuha radin anha daxalatil janna Seydina Muhammad nee jigéen bu génnee àdduna su borom këram taxawee ni gërëm naa ko rek yàlla nee na bu ëllëgee dañ ko naan aljanaa ngoog dugal ci aljanna bu la neex te yaakaar naa loolu feeñ na ñun ñëpp àndandoo nañ dégg seede yi nga xam ne moom la Abdoul Aziz def ci soxna si ñaan yàlla yàlla bu ko cat jiitu yal na ko yàlla teeroo ci yërmande yi waaye buur ñu war cee jàngee itam ni jigéen ñi nañu góorgóorlu pour sàkku seen ngërëmu borom kër ndax comme aljanna boo dekkee ëllëg bokk na ci li la koy may nga làq sa ngërëmu borom kër kon góorgóorlu jaadu na bàyyiwaat xel borom kër yi ñaanal leen tarbiyu leen waaye itam sàkku seen barke lii yaakaar naa jàngat la pour képp kuy jigéen ci réew mi nga sàkku ko ci sa borom kër ba am ko ni ko soxna si Abdoul Aziz Ndiaye amee ci Abdoul Ndiaye. Mhm. waaye daal tey bés la bu jar a bàyyi xel surtout bés mel ni jàmb ne war na ko mën a bàyyi xel. lu jar a bàyyi xel la ndax loo xam ne du jaaz sëriñ bi wax na ko sànq boo ñëwee toog war a bàyyi xel yàlla bàyyi xel ni bis a ngi ñëw boo xam ni da ngay wuy ji sa boroom dund gi lu mu gudd gudd la Seydil Xaaji Malick waxoon araaka nasiital mawt wal mawtu mawridun fa lil kulli min bahril mamaati nasibun gis naa la ngay fàtte fàtte lu dee te dee nekkul lu ñuy fàtte loo xam ni bis bu nekk mi ngi topp kër yi di fëgg te bis dana ñëw mu fëgg sa kër bàyyil xel ni bis dana ñëw mu fëgg la fexeel ba bu lay fëgg na la fekk ci lu baax nañu bëggante nañu soppante nañu raxas xol yi nañu joxante loxo ngir bàyyi xel li nga xam ni moom mooy dee bis buy ñëw fekk ñu ci lu rafet. jërëjëf Yaas jërëjëf Bour.